president de ah. la Comer yàgg ngeen am taxawaay bi ngeen am tey yàgg ngeen am taxawaay bi ngeen am tey moo tax fekk leen fi yéen ñëpp ngeen mobiliser wu tous comme un seul homme pour mën a dem fi nga xam ne far la ñu war a te monsieur le ministre jiite ko fii coordonné ko ci département élection bi xam ne moom la ñuy dëgmal xam naa ne nag gaañee ca beneen côté tali bi dinañu ne way ñi commencé nañu pare na ci dara xamagul ci préparation la ñu nekk nañu tey préparation rek la lii galop d'essai parce que am naa lu ma wóor mooy bu fekkee ne bés ba jot na bu ministre de l'intérieur signé arrêté ba jox nu le formulaire vous allez vous disperser au niveau de la ville au niveau de chaque commune ngeen sol dans le service de naataango yi parce que la jeunesse mooy ñiy voté la jeunesse mooy ñi faloon le président de la république yéen ñii ngeen jiite woon ko ak seeni pour que nous loolu chers camarades il faut que aussi nous delloo sur nos bopp li nga ko ñu une seule force dans l'unité au niveau de la commune au niveau du département au niveau de l'ensemble des départements sànq nous tax ma tardé monsieur le ministre waxon nous la ko ma ngi won djourbel fofa réunion interne lañ fa ak une trentaine de maires venant de la région de vous donner le message du président de la république bi boobu la mooy tey demuñu élection locale tey benn nit moo soxla muy le président de la république. amul ñett président de la république rek moo moo soxla kon nag bu fekkee ne loolu la ñuy wax ne moom la ñu bëgg moom la ñu def suñu leader te nag ñu milliards def ko dans la banlieue te Rufisque desul.

war nous consolider war élargir kon ñun ci vraiment de côté vraiment tête de côté nos petites histoires on doon donne and doon ben ba ñu duggé ci kër yi ëpp solo le ministre parler du bilan du président de la république am solo amul solo les jeunes

Parce que monsieur le ministre est membre du pôle parrainage et mobilisation. Yonit qui est membre du pôle parrainage et mobilisation. Comme vous bu fekkee ne il y dans a battre le record du parrainage parce que nous est aussi sas vous parce que nous avons un milliard de membres ba nos pays, nous am vraiment le maximum au niveau de la commune monsieur le ministre en tout cas nous soutenir nous ngi encourager ci parce que il n'y a que la jeunesse qui a mobilisé aujourd'hui dinañu mobiliser aussi les femmes les sages Nous nañu aussi citoyens. la nous Nous organiser Nous nañu nous par Nous ba d'opinion nous sommes responsables des groupements féminins nous sommes les chefs de quartier les délégués de quartier nous sommes les nañu président de la république Pourquoi ko defee ñu mobiliser dès que nous commençons le parrainage une semaine à faire parce que même trois mois mais en une semaine prenons le pari en une semaine de sommes les wi sommes jël pari le pari boobu nag lii moo organiser mettre de côté notre petite divergence parce que amul solo suñu ay personnalité propre amul solo li ëpp solo moy président de la république parce que bon moy wut nous le portons partout à l'intérieur du parti à l'intérieur de la coalition liggéey bi dañu ko bokk ak suñu mbokki Benno Bokk Yaakaar yi bu ko défé yénit en tant que coter ngeen seeti les jeunes de Benno Bokk yakar ànd ak ñom ensemble pour que vraiment y def le maximum en termes de mobilisation en termes de mobilisation pour le parrainage pour le président de la république kon je maa dit féliciter vraiment qu'il encourager